bari na fan yi ñëpp naan nañ signé sart euh, viol non violence maanaam ñu fexe ba déggoo ñun sénégalais yi que bu benn fitna yeewu ci senegal am ñu ko yëkkati ñu mën cee lim ñaari kuréel parce que ñoom ñi xam ñoom lañ woo mooy ñi nga xam ñooy yenn organisation société société civile yi te dinaa ci ñëwaat tuuti ci kanam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy imaam yooyu nga xam ñoo fa nekkoon may wax ni comme ne ko sunu naataangoo yi waxee sànq surtout Mansour waa ñoom xanaa dañoo toog ba ci àgg rek ne lay ni cëpp ci réew mi xanaa jaay doole bi Macky Sall nekk ñoom yëguñu ko woon Macky sal nekk fi depuis 2012 ku bëgg a marche mu bañ jël ay policier ki gendarme am di la duma fu mu dem comme dañ koy takkal brassard rouge ak di ko yuuxoo mu jël ay nervi yu koy dóoreel ñu bëgg a taxaw tey ñoom naan non ñëw leen ñu woote jàmm parce que jàmm mooy yoon mais jàmm day lalu ci dëgg bu fekkente ne da ngaa am ak kër yore fa ñaari soxna ñaari soxna yi bés bu nekk ñuy xeex ñun la soxna sa soxna si yey tooñ au lieu nga woo ko ne ko soxna si doo bàyyi tooñ yow mi yaa tooñ bu ko defee kamay tooñ beneen soxna ba sax xelam xelam mën a dal waaye nga leen di woo ñoom ñaar ñu toog ci dëgg bi di je wane borom kër gu ragal naan non non damaa bëgg ngeen def jàmm parce que kër gi bés bu ne ngeen di xeex waa doo wax kii tooñ boo kii tooñ kenn la kër gi am jàmm donc ñoom ñooñu li ñuy wax waxu tappale la waa waa waa cadre unitaire la cadre unitaire de l'islam bi ay tappalekat lañu te Macky Sall la ñuy liggéeyal c'est ça la vérité xam man du ma fi nekk di layam layam daa dox ci digg bi wax ko ko war a waxee beneen bi mooy Alioune Tine ak Moundiaye Cissé je les respecte beaucoup parce que ñun 2011 ñoo àndoon di xeex bi Ablaye Wade di jaay doole. ñoo àndoon ak ñoom place de l'Obélisque ànd ak ñoom Daniel Brottier ànd ak ñoom ba 23 juin di xeex ànd ak opposition bi yore réew mi tey muy feu Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niass ak Macky Sall pour mën a yem ci ñoom ñett. ak ñeneen ñan fa àndaloon ñëpp ak société civile ñun ñëpp waaw lu tax booba bi Ablaye Wade di jaay doole rey fukki nit ak ñett lu tax ñoom àllintin booba. defaruñ ab charte ni Ablaye Wade signal non violence ñu bàyyi la nga def li nga bëgg ñëw ànd a ñoom tanoor lu tax waxuñu woon ñoom Tanor ak ak ak ak ñoom euh, ak ñoom euh, euh, ñi nga xam tey jii ñoo ŋànk nguur gi ci autour de Macky lu tax neewuñu leen woon kon signé leen pacte de non violence dañoo àndoon ak ñoom di xeex kon lu tax tey Macky Sall di def pire que Ablaye Wade parce que Ablaye Wade xeetu njom gis nga Ablaye Wade njombe lu ne def na ko Sénégal mais Macky la ko yées gis nga Macky Sall il a une gouvernance violente Macky Sall dafa soxor waaw maanaam mënoo jiite réew mi ba noppi di wane xol bu ñuul te loolu la Macky Sall nekk nekkul ci leneen. waa léegi lu tax ñooñu àndoon ak Macky Sall ak feu Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse ak ñun ñi ñëpp ci société civile bi di xeex contre Abdoulaye Wade ci jaay doole bu mu doon de 2011 lu tax ñoom tey nanguwuñ def la même chose taxaw woon Macky Sall yow li ngay def ko moo yées li Abdoulaye doon def. kon kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi waaye làqatu ci ay ay charte non violence tappale ñoom ñëpp ci système bi lañ bokk bëggum ñu mu jeex kon Alioune ñu ngi lay woo ci xeex bi comme na nga ko doon defee 2011 euh, Moundiaye Cissé pour vous citer vous deux ngi leen di woo ci xeex bi comme nañ ko doon defee ànd ak ak yéen en 2011 parce que jaay doole bi am nii Abdoulaye Wade sax defu ko fi Macky sàll nanguwul ñuy dem élection yoo xam ne fichier bi kenn mun laa wax ñan ñooy voté ñan ñoo dul voté ay sénégalais yu yàgg voté ba am 70 ans comme ni ma ko benn paa waxee nee na ma toog ba caag rek dam buñ ñu bindal ma ni ma léegi mënatumaa wote ci nguuru Macky Sall ci jaay doole te may wote ba màggat musu sama bureau de vote bii musu musu laa am voté bu ma fi voté wul bii yoon rek ñu dindil ma dindi ma ci liste yi ni du ma voté te musumaa dem police musumaa dem gendarmerie waa lii du violence waa léegi cette presse là bi titre chaque jour naan l'opposition est violente Mais cette opposition la cette presse-là, n'a arrêté. Non, l'opposition n'a posé aucun acte de, de, violence dans ce pays. Néanmoins, non, on les connaît. C'est-à-dire, il y a beaucoup de journaux qui titrent tous les jours de l'opposition est violente. Nous, Aujourd'hui, la violence est exercée par Macky Sall et son régime. fii kun fi jiiñ violent rek dañ la dañ laa tooñ nañ ñu jox benn vidéo boo xam ne opposition moo dem di dóore nan ñu ko woon benn amul te bu buñ la laajee vidéo Macky Sall mu ngi ne xoos ci internet <laughs> ah mais lii mooy dëgg jàmm day lalu ci dëgg buñ dul waxante dëgg réew mi tàkk lay def. kon nag nañ waxante dëgg. waxante dëgg mooy ku bëgg jàmm am ci dëkk bi da ngay wax Macky Sall mu arrêté cette violence là bi mu exercer sur les sénégalais te moo gën a buqat ñëpp. parce que 8 mars bi mu defee discours am bu gàtt boobu ngeen gisoon boobu dafa tiit daan ni moom jàmm lay wut léegi comprendre na ñaan sëñ Mountakha mu ñaan. ñun ñu may sëñ taxaa moom mu def lan dem yokk li mu policier am yokk li mu gendarme dem gën leen équipé taxaw nag nee na day jàkkaarloo ak ñun peuple sénégalais bi. mais xam nga lu mu lu mu réere mbir mooy sénégalais am na yoo xam ne kenn du ci dellu ginnaaw.